Euh, loolu ñeel actualité politique euh, ñeel réew mi balaa may sori rek euh, ma bàyyi ko kon mu ngi leen mbokk internet. salaamaaleykum Mbour maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa seen info di nuyu seen internautes yi nga xam ne ñu ngi leen vraiment tout d' abord tamit di leen féliciter si liggéey bi nga xam ne yéen koy def ndax ñu ngi leen suivre depuis Saint-Louis vraiment ngeen def liggéey bi am solo parce que comme on dit rek démocratie bu ñuy wax rek presque si am solo. te vraiment yéen a ngi koy joué avec beaucoup d'équité et de responsabilité donc avant loolu da may may tamit ma nga xam ne fa laa jógee ndax maa ngi Dakar dëkk fa nga xam ne mooy Ngor da nga xam yëpp fi mu ne mu ngi ba nga xam ne ki nga xam ne mooy Adja Diallo faat na si ñu koy jaal ay mbokkam di jaal fan di jaal ñëpp ñi nga xam ne population Ngor la euh, tamit di masawu tamit état bi di masawu le président de la ndax mooy njabootu ñun ñëpp bi tamit di ma may ma féliciter le ministre Amadou Mansour Faye nga xam ne mooy sama mooy sama njiit ndax démb da doon dalal ki nga xam ne mooy le premier ministre Amadou Ba fële ca Ndar ci concernant les problèmes de l'assainissement au niveau de la comment dirais-je de Pikine mm-hmm. euh, bi nga xam ne fa laa ko tamit euh, tamit di féliciter encore une fois ci li nga xam ne drapeau chef de l'État bi nga xam ne mu ngi doon tamit démb ca Ndar mm-hmm. muy xew-xew bu rëy boo xam ne amoon na fa vraiment te Dakar remporté ko voilà donc parce que c'est chez nous dans nous quoi foofu tamit dañ fay prés dañ fay félicité encore une fois liggéey bi nga xam ne président mu ngi def ci wàllu sport dañ boo gisee waa U17 yi nga xam ne tey qualifié nañu si final bi finalu CAN U17 di wax ne président mu ngi liggéey liggéey am solo si sport. Mm-hmm. tey boo xoolee rek en 2017 jëloon na li nga xam ne mooy 1 pour cent au budget national bi ko wàllu sport tey 2017 tey euh, astafurlah 2023 bi jël na li nga xam ne à hauteur de li nga xam ne jagleel na ko sport. kon gàcce nga alam le président de la république son excellence Macky Sall. xam naa ci président moomu sax euh, la ñuy des ci jamono yoo xam ne euh, ñu bëri jàpp nañ ne euh, dañ bëgg dafa bëgg yóotu li ñuy woowee troisième mandat jaarale ko ci troisième candidature tax na ba dëkk bi yëngu wante nag yow da bokk ci li nga xam ne ñi nga xam ne dañuy défendre maanaam troisième mandat boobule ana foo ko teg. waa xam nga tamit da nga wax sa biir wax président dégguñu fenn mu ne day def troisième mandat ni oui hmm. ni non te mu hmm. tekk ci ay base yi nga xam ne seen naataango ni oui ni non boobu nag waaw mais xam nga tey boo xoolee expliqué na si ay argument yu am solo hmm. daf ci teg loo xam ne te man man je suis en tant que militant en tan que taalibe bi nga xam ne tey da nga nekk ci biir benn bokk yaakaar man avant tout damay cautionner la candidature de son excellence Macky Sall comme ni nga waxee dama ma bind si benn article da ngeen ko macha allah donc ñun dañ gëm ne président mooy suñu sens président de la république tey comme ni ma waxee mooy le seul garant de notre sécurité tamit moom moo tax ñi nga xam tey moom moo jàng wàllu énergie moom moo xam pétrole moom moo xam gaz te gis nañ tamit liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def ñun doyalaguñ ñun en tant que ndaw ñi tey boo seetloo li nga xam ne président maa ngi lay wax li wàllum sport tey boo jëlee tey li nga xam ne naka ni arène nationale arène nationale la à hauteur de 32 milliards tey bi ñu ko ñëwee Macky bi ñu ko njëkkee indil Abdou Diouf le président Abdou Diouf quest fan laa koy laa koy jëlee tey boo jëlee ci 1960 ba léegi mënoo ma wax na meilleur président boo xam ne raw na raw na Macky Sall jëlal Abdoulaye Wade Senghor jëlal Abdou Diouf comme ni ma la ko waxee léegi léegi ci li nga xam ne réalisation yi nga xam ne président moo koy def mais dañuy bàyyi beneen président boo xam dafay ñëw ñëw yàqal ñu le projet. def ko mais mais lu tax nga ne yàq lu tax xam nga tey ku ne day ñëw def lenn nga dem sa mais attends loolu de loolu ñu bëri dañ koy théoriser mais c'est pas toujours le cas tey plan Gouana bu c'est un éternel recommencement boo xam ne ñun chaque jour bu ñiit ñëwee keneen day ñëw tàmbali tey dañu am un programme PSE financé par la Banque mondiale et l'FMI tey boo xoolee PSE horizon 2035 la nekk te kan moo ko teg mooy le président de la République dañu am ay jéego yu am tey ne sa res jëlal tey TER bi ñan ñoo ne woon am na ñu fi taxawoon ne TER bi du daw bis bu TER bi dawee man ma bàyyi politique waat assemblée devant l'Assemblée nationale tey teer bi mu ngi daw ba ñu xam ne tey ñu ngi ñu ngi may may gis manifestant yi nga xam ne sax dañuy dem di manifester dugg ci teer bi bu ñuy dem dañ ci dugg moo tax ma d'accord euh, sur la candidature de son excellence Macky Sall hmm. ñun ñun ñoo ko demande sociale la ñun ñoo laaj pour mu def ko ñun ñoo soxla ñun Macky ndax tey xoolal tey opposition bi nga xam ne ñoom ñoo ñu war ñoom ñoo yaakaar soi-disant yaakaar nañ war nañ a jiite Sénégal tey dama lay jëlal la candidature te su ma la commencé la si Ousmane Sonko yow vous voyez très sincèrement que ne Ousmane Sonko war nañ ko mën a jël jël dénk ko suñu réew. mais attends dans l'histoire de la politique sénégalaise. Hmm. Macky Sall depuis 2003 bi Idrissa Seck di def déclaration politique générale commencé ci Idrissa Seck rek bi nga xam ne fan yii déclaré na nga xool cursusam ndax mën nañ ko tudd ci wàllum jigéen. il faut pas juste il faut pas sous-estimer c'est très important ñun ñi dañ naan vie privée janvier janvier la bokkul ak projet bi nga xam ne tey moom la porté ba ñu bëri gëm ko ay jeunes yu bëri ko ci ci projet boobu ne gëm nayti bu toogee si biir euh, gëm bi nga xam ne cordon ombilical bi nga xam ne am na diggante euh, France ak Afrique notamment France ak Sénégal moom message boobu lay véhiculé ba ne ko si gëm loolu dinañ ci ñëwaat si France ak Sénégal parce que tout récemment dégg nga ko mu ne Auchan mu ngi ci biir commune te tey bu nga xoolee ki nga gën a jege ka nga xam ne moo ko investi muy Guy Marius Sagna tey dégg nañ ko muy wax France dégage Auchan ñaata Auchan lañ fi taal ak ñaata emploi la fi mais dama bëgg a ñëwaat si historique homme njiit mhm. un dirigeant mhm. tey boo jëlee si dirigeant mën naa la commencé si comme nous sommes euh, des musulmans mën naa la commencé si Omar Ibn Abdul Aziz ay le prophète suñu ay njiit le leadership il faut pas que ñu jël caricature le njiit le responsable que ce soit guide religieux wala muy kenn am na loo xam ne kenn du la ko baal parce que boo bëggee jiite 17 millions d'habitants jiite xalif xalif général des Mourides xalif général des Tidianes des Layènes et cetera et cetera am na yenn comportement yoo xam ne nee naa la benn de dafa oyof lu tax nga jël am deux femmes am sa deux soxna nga takk leen fa nga leen war a takkee dem étant se revendiquant li nga xam ne jeunesse nañ koy xam nga jeunesse bi il faut des fois ñuy xippiwaat seen bët parce qu'ils ont été omnibulés par les surtout le cas de figure de Ousmane Sonko. mais affaire mërs la boo. xam ne non mërs bi gis nga état boo xoolee nguur yu bëri. boo xam ne moom ak ñi ñi ñi ñi ñi ànd ak moom dañoo jàpp ne ab complot dina def ci am. non complot dama la bëgg a ñëw boo ma bàyyee. ma ma dem au très fond de ma pensée. di nga comprendre li ma lay wax si njiit il faut que ñu bañ ko ñu bañ ko koy fal. tey Sénégal gaz ak pétrole mu ngi fi. Mhm. tey boo demee Saint-Louis sur la torte de Saint-Louis. yaa y a 450 milliards de mètres cubes je précise bien 450 milliards de mètres de gaz yoo xam ne ñu ngi fay nelaw loolu lan la mën a jëriñ jeunesse bi te jël tekk si benn loxo koo xam ne bu benn jigéen yëngatoo sax laal ko maase ka rek mu am ay sensibilité rek taxaw ne day jaay suñu gaz <laughs> tey njiit yi nga gis yëpp ñu leen di tàmm ñu leen di ñu tey mën nañ si jël islam boo jëlee ay Ousseynou ay jabaram jabaram ñoo leen faat ñoo leen ñoo leen sànq ak ñeneen ak ñeneen te dañuy bàyyi Ousmane Sonko tey mu tayle suñu réew gis nga tey le cas de Mass dafa bëri seen seen seen seen entourage boobu vous rappelez-vous l'affaire de Guy Marius Sagna étant bi nag bëgg a wax bëgg a appesantir lu am solo boo solee jëlal le cas de Guy Marius ah, ah, euh, dama bëgg ñu gën a focaliser ci ñoom ana lan ñu proposé peut ci. ci liñ liñ liñ nar a doxalee ak yi ni mel mais pas comme mais ñu kii ci seen yoo xam ne. ñun ñu ku nekk peut-être am nga loo xam ne dañ ne def nga ko peut-être seen bos daa feeñ. waaw ah non attends xam nga tey Ousmane Sonko buy ñëw politique am mooy ñi ñëpp dañoo bon man maa baax tey soo jëlee les militants de Pastef qu'est-ce qu'ils revendiquent des ñun ñoo gën ñi ñi bokk ci nguur dañoo bon te il faut que loolu ñu politique boobu ñu bàyyi mooy yow tu es avec le président wala da nekk ci benn bokk yaakaar yow da nga ñoom ñoo baax te ñu ñëpp dañoo bokk fi ñu bokk classe ñuy xamante nekk ay naataango mosuñu ñu raw si dara fa ñu dëkk ñun bu ñu yëkkatiwul peel ñun du ñu yëkkati sax benn brin armé pour liggéey dañ fay def leneen leneen acte de développement bi ngay wax léegi maa ngi dëkk pendant cinq ans j'ai été au niveau du ministère de l'enseignement supérieur comme étant formateur des de l'informatique pour réduire la fracture numérique loolu ñu nañ liggéey suñu dëkk am ay yoo xam ne defuñu ko te tey ils se revendiquent gis nga tey dama la bëgg wax ne dafa war a am am na lu may léegi yaa ngi ma si yaa ngi mais est-ce que accessibilité boobu yow nga am pour pour nga formé est tey li nga jege pouvoir moo tax it nga am gis nga tey peut-être ñoom amuñu ko bi nga amoon it dinañ ko tey bu fekkee dañuy dañuy ñun ñëpp ñu ngi suivre après à la candidature léegi c'est fait sax kenn du ko gis ñu sélectionné la contacté la nga liggéeyal sa dëkk am na nag ñi am chance nekk ci état am na ñi nga xam ne amuñu chance nekk ci état yow yaa ngi nekk secteur privé di def sa liggéey comme ni mu te li nga ci liggéey nii as néew man mënu ma ko ndax yow yaa ngi informer la population donc information tam il faut ñu équilibrer ko li bon ñu koy wax askan bi li baax ñu koy fësal kenn mënul jël benn nit rek tabax ko benn monument rek rafetal ko ne moo gën ñëpp lan la koy woowee Ousmane mu sell mi ak ñeneen ak ñeneen tey ñi ko wër ñëpp mën naa la limal à part à seen ay dossier fi ñu tàmbalee mooy ci ñi nga xam ne ñoo war a yer réew jëlal cas par cas jëlal personne par personne tey gis nga leen fan yii rek ñu ngi tamante dëmm di dóorante ay coups kii naan yaa ma ne ma ne la. waaw ah, loolu nañ ko gis si biir APR sax coow yenn saa yi coow yëngu loolu day daan am politique politique yàgg na si politique. dafa doon am un gentleman agreement bi nga xam ne gars yi dañ ko doon def mooy tey Ablaye Wade da nga gën a dégg tey kii di gën a tudd ay fantaisins ay ay dem di tooñante di kalante et cetera mais léegi dangay gis ba day sax. ba nit ñi taxaw war a jiiti suñu réew naan man kat ñu ngi ma doon enregistré dégg naa ci diw diw li ma ko xamal su ma ko waxee su ma ko liwee loolu mooy la politique est-ce que tout récemment durant ces yi nga xam deux ans yi nga xam ne génn est-ce que dégg nga kenn mu waxal ñu sur la politique économique est-ce que dégg ñu euh, kenn waxal ñu sur l'endettement sur la situation sanitaire du pays sur l'éducation du pays est-ce que tey enseignants yi ñooy grève est-ce que ñoom yéen nañ ci yàbbi wala manifestation ne ah waa UVS ñu ngi di laaj seen keneen ak keneen pourtant askan bi lañ bokk est-ce que am nañ politique économique wala politique sanitaire boo xam gaa yi mën nañ ci toog débattre amatul aji sa Sonko te loolu nag ñoom ñooñu ci wàccee ñooñu wàccee sur ces bas la te gis nga nag dafa am loo xam ne gis nga Sénégal il faut ñu toogal waxtaanal te xam lan mooy un homme politique un homme politique doit être un visionnaire doit être quelqu'un koo xam ne tey gisaane kan la ki nga xam ne tey dafa taxawal askanam ki nga xam ne tey moom balaa muy wax waxu boppam tey boo si dégg ñi nga xam ne waxu dialogue yëpp amul kenn ki nga xam ne waxal na pour ne ah man dañu def dialogue national reposé sur les intérêts de la population ou bien sur les intérêts du peuple amul lan nga fi fan yi seen taxawaay il faut ñu xolaat ñun ñan lañ war a jox te gis nañ fi député yu fi kañ yi ay ay ay soxna yoo xam ne dañoo enceinte te suba sax dépense mooy seen ay procès est-ce que tey ñooñu lañ nar a dégg est tey loolu lépp nga wax ak ñi ñu war a dégg ak yooyu ak it euh, euh, tolluwaayu réew mi est-ce que tey un troisième mandat à tout prix pourquoi défendre un troisième candidat à Bourg-Gueye dañ koy défendre donte donte donte léegi dañuy défendre ki ku dem bay mën a défendre koo xam ne dafa seq ak as ndaw ñu koy war koy mu dossier nekk dossier pendant sur devant la justice boo ku dem ba mën a défendre koo xam ne dañ koy jiiñ sur la quinze d'avance boo demee ba nga xam ne dañuy dañuy jiiñ koo xam ne am na problème ak soxna ba nga xam ne gi jiiñ nañ ko affaire ay jigéen mais président de la république dafa war a liggéey pour ñun nañ gëm ñu en tant président de la république warul jël réew mi dégg ñun dañu ko ko baal en tant que des républicains baalu ñu Macky Sall tey mu bañ a def candidature am tey dañ koy défendre tey dañ koy défendre suur ndax lay président président ñoom ñooy wax nii rek gis nga opposition bi nga xam ne avant Macky Sall di déclarer candidature ñoom ñu ngay xeex di xuloo di dóorante di yaakaar naa bu président déclaré woon mun amul leneen li nga xam ne mën nga si wax parce que tey ji président képp kan moo ne kan moo kan moo la mën a wax ni président nekkul di changé tey jëlal président li nga xam ne def na ko situation géopolitique gu Afrique tey Gambie dañ doon ku nekk gisoon nañ li fa daan xew gis nañ Guinée Bissau li fa daan xew président gis nga liggéey bi nga xam ne moo ko fay def tey coow bu amee ci Afrique dañuy wala naan woowu leen le président son excellence Macky Sall tey dañu war a xam ñun kan lañ am dañu war a xam ñun tamit lañuy liggéey tey imagine président de la République deux mille deux mille vingt deux ba deux mille vingt quatre ñaata ñu vingt trois ñaata ñaata ñaata kii la la joué si masse salariale ci nga xam ne jëla si enseignant yi rek ñaata lañ leen yokkal seen ay salaire dëgg la réalisation am na mais tam teewul soo gën a dund population bi ñu ngi jooy Ousmane population bi ñu gën a jooy loolu ñu jooy métuwaay dëkk bi ñu ngi jooy ñu jooy métuwaay njëg yi ñu ngi jooy métuwaay métuwaay dëkk mais métuwaay métuwaay njëg yi gis nañ gis nañ fan yi Abdou le ministre du commerce mu ciy wax ba jël plus de mille agents yoo xam non loolu réalité la xam nga Sénégal dañ nekk tamit il faut ñu xam dëkk bi Afrique non il faut ñu xam dëkk bi monde bi ni muy doxee sur nous sommes sur la mondialisation gis na tey benn dëkk rek bu amee benn problème rek monde bi yëpp dañ gis nañ la situation de la Chine avec la Covid tey bi ñu amee problème monde bi yëpp ko yëg mais gis nga dañu rafet rafetlu tamit liggéey Abdou Karim Fafana bi nga xam ne jël na mille agents yoo xam ne ñu ngi jéem a saytu comment dire la politique économique des marchés li nga xam ne tey marché yi parce que tamit il faut ñu waxante ko il faut ñu waxante ko tey patriotisme économie bi nga xam ne sénégalais commerçant yi dañ ko war a am loolu dañ ci war a wax mooy il faut que tamit ñun ñëpp ñu nangu yërëm askan bi président bu bu ñu bu état bi fixé benn prix commerçant yi jaaykat yi ñëpp ñu respecté ko mais gis nañ dañuy def ay rétention def ay groupe whatsapp di discuter naan prix bi nañ ko tëye nañ téye sucre bi sucre instant bi Dakar da ngay wër sucre koy stocké soble gis nañ temps yi màggal Tuubaa bi mu am ñooy xool heure bu leen neex ñu génne ko heure bu leen neex ñu wàññi heure bu leen neex ñu yokk te ñoom amuñu benn monopole du marché boo xam ne war nañ mën a toog fixé seen boobu état moom mooy gérer loolu moom mooy gérer politique économique politique que liggéey bi si war est-ce que liggéey bi naa ne man très sincèrement mënoon naa ne amul parce que contrôle économique contrôle interne dafa am dans toute situation tey seen entreprise bi da soxla contrôle interne pour xool kuy heure kuy wàcc heure est que ñu ngi assuré et cetera tey loolu dafa war a baax tamit ci marché bi ñuy xam ñun suñu ay suñu suñu ay commerçant si lan la ñuy ak bi te loolu tax ñoom tey ñu am problème ñu dañu indi parce que sénégalais yi ku leen yërëm lañu xam président bu leen yërëm commerçant bu leen yërëm jaaykat bu leen yërëm parce que tamit Sénégal dañ nekk ci pays boo xam ne pays pauvre demagul fenn en voie de développement nekk sur la voie de l'émergence te loolu loolu tax gën a tax gis nga coono yiy daj tey bu fekkoon daju bu fekkoon président Ablaye Wade wala Abdou Diouf liggéeyaloon nañu président ay la yëwén tous as tout ñu liggéeyal ko ko tey loolu lii yëpp du nekk suñu problème mais président dafa nekk di corrigé waat des erreurs d' ajustement structurel non dama ne liggéeyuñu am na am na ku si nekk am na loo am na loo am na loo am na ne boo xoolee Senghor la paix sociale am na suñu bëri lu si liggéey Abdou Diouf parce que ce sont des socialistes Abdoulaye Wade boo jëlee infrastructure yi nga gis nii yëpp tey moo ñu war a gëmal gëmal nañu tey bu ñu demee bay wax ay croissance Abdoulaye Wade daf ñu ko gëmloo lool loo nañu gëm nañu war nañ mën a liggéey dëkk ci ay infrastructure président de la foofu la ñëw tegaat tànkam gën ko renforcer mais il faut ñu nangu tamit am na ay yàqu-yàqu yu bëri am na ay yàqu-yàqu yu bëri yoo xam ne am na fi mais tey président dafa ñëw defaraat lépp defaraat xar-xanamu réew mi loolu yow mii journaliste yow war nga mën a toog nga def sa bureau tout nga xool lii évoluer si Sénégal tey pour jël programme PUDC. Ousmane bu ngeen ne am na na am na comme ni ma expliqué dëkk bu ñu ne économie économie bi maanaam croissance jéggi na temps mais croissance boobu comme sama benn nara nga waxee mën nañuy lekk maanaam croissance bi bi ko waxee tey dafa war a feeñ ci li nga xam ne moom mooy moom mooy panier ménager mais ba tey tey bu ñu waxee benn croissance à même à ñu ngi jooy tey Sénégal bëri na ñoo xam ne euh, Ousmane trois du pays mënatuñ ko assuré. xam nga xam nga xam nga tey soo jëlee ñu bëri dañ yaakaar ne. certains disent que la croissance ne se mange pas ils ont raison parce que tey su la joxoon benn billet wu dix doo ko lekk mais la croissance c'est quoi c'est l'augmentation des richesses disponibles selon resto tey croissance bu ñu koy wax mooy ku ci nekk chiffre euh, le PIB par tête bi nga xam ne nit ki mu koy wax mais il faut tamit comprendre que la croissance elle est qualitative et non quantitative tantôt que le développement est qualitatif xam ko développement ak croissance lekk ñu ko et cetera mais croissance bi tey mën nañu xool ne Sénégal tey gis neen ko tey Ablaye Wade da doon da doon da doon da doon da doon wu di di di woo ministre mi di savourer ne am na croissance à hauteur de 3 pour cent 3 pour cent je vous dis tey président de la République dem porté que à hauteur de 6 pour cent c'est important tey boo jëlee maa ngi la koy wax léegi-léegi tey soo jëlee enseignant comment ça xoolal rek nga comprendre ba wan la Sénégalais tey pour wan nañ yi nelaw da ngay jël benn enseignant boo xam ne doon percevoir 245 000 hmm. salaire léegi mu ngi ci à 500 000 te gën a demal demal si lycée nga laaj proviseurs yi lu ñuy fayam. mais bu dee à hauteur de huit bu nekk. demee di te bu te bu te muy def lenn a cher daanaka daanaka benn lay doon. non xam nga loolu mooy li ma la mooy li ma la wax xam nga sànq wax naa la ne la tey dafa am loo xam suñu ay suñu ay commerçant suñu ay ñoom ñoo am li nga xam ne mooy patriotisme économique mooy nga ne man kat jëndee naa lii naa jaayee di dama ci seet lu rëy mais da nga naan damay jaay lii parce que xaw ma 2024 bi mu mujj xaaral ma yokk teel a am non non il faut que ñun tamit ñu xam ku si nekk ku si nekk nga am part de responsabilité le président di muy contrôle bi nga xam ne mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy am si askan moom moo la gën a xam ce qui se amul kenn ku la xam ne Sénégal fii un Sénégalais plus informé que le président amul moo la gën a xam tey gis nga le cas de le cas de le cas la poste gis nga li wax comment se fait-il que poste mën a di am un budget de six milliards nga bëgg a toll am ay endettement presque dix neuf milliards recrutement yi nga xam ne moom moo ko waxal boppam recrutement yoo xam da ngay jël ay nit ku nekk di dugal fu la neex loolu moo ko njëkk clamse gis bi ñuy agent de travail di ñëw ci ko lan la leen wax mun leen yéen ñëpp ngeen ñëw naan augmentation salaire augmentation salaire ñu leen di salaire tey boo jëlee salaire enseignant j'en reviens tey boo cinq cent trente cinq milliards ñu koy fay enseignants kese te ñoo ñoo gën a contre le régime tey nga jël benn baa bi a xam ne day boo xam ne day day liggéey fayee ko cinq mille la journée tey ko si sénégalais la bokk ko yoon boo xam ne fa lay jaar est que yombal nañ ko liggéeyam et cetera non loolu état moo nga ne bu fekkee dafa am ñenn ñoo xam ne dañ na ñoom les fonctionnaires ne man maa gën ñii man maa war a ëpp ñi te ñee ñoo leen fay c'est un problème parce que il faut il faut pas oublier que le secteur informel li muy contribuer tey li mu a contribuer li mu war dugal ci gafak état dafa bëri mais tey loolu yëpp dañ koy perte parce que dañoo doon ñoo xam dañuy sonn parce que ñoom ñooy liggéey di sonn di fay ñeneen yi te dañuy fay impôt dañuy dañuy dañuy dañuy fay dañuy def dañuy fay taxe dañuy def lépp te tey ñu gis seen bopp tamit état loolu président wax na ko. waaw bu ñu dellusiwaatee Ousmane ci mbirum euh, troisième candidature bi euh, ak président jiitu réew Macky Sall ak li ci wax yëpp ak li mu ci wax nañ ko. Euh, tant de fois génne na ne bii mooy mandat bu mujj. deuxième mandat bu ko amaat ak it situation fi mu est-ce que jàppoo ne tey euh, mu jëloon benn décision bu sage ne du bokk ci élection yi wax ji jeex Sénégal am jàmm jàppoo ne loolu moo gën non boobaa day yomb xam nga tey dafa am loo xam ne ce qu'on appelle l'échiquier politique tey président de la république day politique c'est un homme politique mm-hmm. bu fekkee ne politicien dañ koy xaar ci benn jeu des jeunes ñoom. contrairement ak liggéeyam mais tey bu fekkee da taxaw am ku taxaw ne la man bis moo nekkee président sa jaboot naa la topp bis moo nekkee président yow juge woo la nga toog moom nga ne ko fàttali ko ne bis bu ma faloo di nga am problème su ma faloo diw dina am problème dinaa tëj diw dinaa tëj diw ne serait-ce que toutes accusations la war na tax ne président taxaw def candidature pour jàkkaarloo loolu li ko te leneen li amul def na ñaari mandat ba pare non il faut que ñaari mandat li baax da ngay demal xool baax ko Justin Ndiaye nul ne peut faire ne peut faire plus de man plus de deux mandats consécutifs. deux. deux déedéet. xam nga waxuñu deux. monsieur waxul deux la wax très bien. boo lay wane dafa des. loolu la Babacar Seye Ndiaye wax. boo ko déggee noonu keneen ko déggee non effectivement xam tey on n'a pas dit deux sept ans. ou bien de cinq ans je ne pas juriste. mais ñun ñëpp suivant les informations. dañuy xool les analyses yi nga xam ni nii mais dafa des. Mm. man pour man waroon nañ ko gën a compléter waroon nañ ko gën a rafetaatal. wax mu leer. man du ma juriste je économiste. mais tey dama ne la deux on n'a pas dit deux. non non on n'a pas dit deux tax na état chaque jour droit day am évolution comme ni politique di amee évolution. Mm-hmm. président moment bi ñu wax ne du ma defaat bi mooy sama mujj rakkay bi julli naa et cetera mais dañ ko war a dañ ko faral a président il faut muy def euh, comment dire euh, foog mu foog mu parce que dañ dañ ko soxlawaat mu dolliwaat yeneen mais mais est ce tey maanaam ñu mel ni yow ak lu tax ñu bëri nee nañ peut-être benn intérêt bu benn peut-être bu seen benn intérêt personnel la mais xool leen peut-être intérêt Sénégal ak euh, yi ni mel ak itam jàmm ji. non xam nga intérêt intérêt personnel moom parce que man sama intérêt bu évolué te intérêt Sénégal évolué ban njëriñ lay am tey bu fekkoon dëkk bi lay tàkk ñun suñu ñëpp suñu kër suñu dëkk ñoom suñu kër bi lay tàkk ay du yem si benn si bopp borom comme comme ni ñu koy wolof di waxee gis nga président dafa nekk ci siège boo xam ne dama ne dama da ngay xool tey jëlal exemple le cas de BRT xoolal li nga xam ne plus de cent quarante cinq cent quarante quatre bus te bus bu nekk dina def cent cinquante passagers par jour loolu dañuy nangu keneen ñëw duñ ko yàqal wala dañuy nangu ñëw keneen ñëw ne. non loolu moom dama wax li ma la waxoon rek. tey tey maanaam bu fi bàyyi ay projet moom dafay fekkoon ay projet égali bu fi jógee it ah. keneen day toog égali ay projet rek. mais dana dana mën na ñëw gis na moo gën ah, mu def bi muy fi jógee daf ne may leen ma rek ma rek égali am ay projet gis nga xam ne ñooy nekk di wax la candidature de son excellence Macky Sall te ñu pour ñoo la gën a xam ne président am na droit def troisième mandat ñu si ëpp Barthélémy Dias gis si benn télé si benn naataango laaj ko ne président dafa am def troisième mandat te kenn du ma en parlant de en parlant de juriste dégg nga Maître Doudou xam nga tey. man nee na moom daal xool na constitution dugg na fu ne xool na mais ma ne gisul fu Macky Sall. mais war a mën a defee troisième. non mais il s'est parce que tey moom mënul wax une chose et son contraire da ngay déglu analyser bu njëkk yi la mu waxoon gis nga nit ñi dañuy xoolal il retourne à chaque fois le test. daa am dañoo président tamit président président mooy li ma la wax comme ni ko kii di waxee c'est président doolu koy juum nit la nag nekkul juum aayu mais politiquement il faut nga nangu il faut ñu nangu c'est le chef d'orchestre moom. mooy wax nii la ñëpp ne nii la moo ne nii nee la moom moo leen di diriger moo leen di manipuler instant bi comme ni koy waxee Barth yaa ngi doxal waaye tey kuy doxal dëgg-dëgg mooy le président de la république ñu nangu ko ndax barki dem moon jaay rek benn accolade bi nga xam ne def na nga Khalifa Sall ñuy yuuxoo ko moo yëngalaat affaire moo yëngalaat affaire moo koy yëngal heure bu ko neex comme ni nga xale yi di waxee tey président de la république ku ko mënti nangul ay la yéwén nangul ko ne xam-xamam ak xarañteefam si politique xoolal coalition bi mu yore depuis 2012 ku ku ànd ak Tanor daal na ko yàlla yërëm ko ànd ak Moustapha Niass ñëwaat Idriss Seck dolli ci yeneen ak ñeneen. ak coalition boobu mais même boobu nga wax am na ñu ne si biir ñu ngi ñu ngi ñu ngi kaas ñu nekk si biir ñu bëri moom d' accord ñu ak doxalin ak comme tout groupement. waaye ñun ba ñuy suñu biir la ñuy waxtaan waaye ñële kii def def kii day envoyé benn galgal keneen yónnee ko beneen galgal ñuy tamante dëgg yaa wax ak diw yaa wax ak diw tey li wax leer na. mais man mënuma comprendre tamit comment se fait-il que le CEO Ousmane Sonko dem di rencontrer Idrissa Seck waxul dara ay militants wax ak tey mu nangu bay wax ak la République téléphone te ay militants ko loolu yëpp mun na bokkoon ne moom yëgul jalab il faut que tamit des fois ñuy xool mais Sénégalais ndeysaan dañoo gëm benn affaire rek ni lii mooy am far force. jàllab boobu dañu bëri dañoo jàpp rek Macky Sall da pour gars yi ko kéelee. ni ko xaalalee yoon bi rek ñu bëri non xam nga tey gis nga dialogue. gis nga nee nañu muy yi quoi. xalifa il a bien fait. ndeysaan dafa am ñu am ce sont des politiques. xalifa intérêt la ci nekk aussi. non gis nga politique politique politique lu si ëpp tey intérêt la. Mhm. parce que fa ñuy waxtaanee foo ko fekkee wu mënoo décider. la politique de chaise vide ça n'existe pas. amnistie amnistie surtout sax moo tax may wax. non amnistie na bokk ci élection na bokk moom. xalifa gis nañ li nga xeexal li nga xeexal Ousmane Sonko gis nañ li ci daj gis nañ ñoom seen coalition ay Barthélémy Dias ñu yëpp ñëpp luñ ci daj mais man tey sori été moi ma nekk Ousmane balaa Ousmane Sonko dama naan man danaa dem jalaw ngir xalifa su ma waxul sama bopp aw ma problème justice mais dinaa dem ngir xalifa bokk xeexal loolu mooy politique mooy ku nekk da ngay defar loolu la ñun souvent loolu la ñuy wax ñun benn bokk yaakaar nit da ngay mën sa nit président dafay mën nitam nit da ngay mën sa nit da ngay làq sa doom ba pare gis nañ ko mu def ko ak Mimi Touré pourquoi def ko ak Khalifa ne dañoo attaqué Mimi Touré kaay sama gannaaw lu tax def ko ak Pape Djibril Fall Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy def li nga xam ne dañuy politique te politique nag dafa am foo xam ne day da da ngay teer. te si comment dire mun naa la expliquer da ngay da ngay da ngay jël sa intelligence nga teg ko ne le te demee benn Baay Faal am benn taxawaay boo xam ne yow ngay déglu sa bon sens sa xel lim lay wax waaye boo amee ay moral di xool ay sentiment dañ lay rey seen politique Sénégal noonu la demee dañ lay rey il faut que ñuy xoolaat tamit tey ñan la ñuy dégg yow man du ma du ma du ma a taxaw man tey su ma su waxoon ne du def troisième mandat tey bu déclaré ko

fii Sénégal li fi ah, jaarul yoon li fi jaarul yoon bëri na danañ ko doon ndax ndax. donte cautionné cautionné cautionné woon ci loolu defe ni nit yooyu dafa ñaaw gis nga tey lu bon su ko ñëpp doon def taxul mu dagal tey taxaw élèves da nga gis ñu koy def école tëj ñuy dajji ay classe ay sa ay salle de classe di xotti seen ay cahier si ñeneen ko gisee parce que ñoo ñuy gis seen seen ay image buñu fàtt ne xale dañu yore ay téléphone léegi tey xale yi dañuy gis ay manifestation ay xale yu ndaw ay taalibe ñooy nekk ci tali bi ay xale yu ndaw suñu ay doom suñu ay rakk parce que xam lu tax gis nañ seen ay mag ñi nga xam ne ñoo leen di jiite ñoo koy def gis nga yow mi kilifa gi yow mi nekk ci biir kër gi yow comportement bi nga am rek moom la ñeneen yi moom la ñeneen ñi moom la ñeneen ñi di am voyez donc pour vous dire que tey dafa am njiit danga war a am taxawaay da nga war a nekk une référence da war a nekk koo xam ne yow roy waay na képp ku la xool sax sëgg ndax respect bi lay jox soo àndoo ñëpp déglu na ndax cër biñ lay jox waaye dangay taxaw tey lu la neex nga def ko man président bu fekkee ñi la nar a bàyyi réew moom man mën naa dem Gàmbi wala Guinée Bissau wala gàddaay dem toog bu fekkee ñii di ñii di kàjj ñii di wéq ay xale ay jigéen yu yoo xam dañoo nekk si dañoo nekk seen ay maanaam dañu war a am dañu war a dañu ëmb ñu baax ma si ci kàddu yi. non loolu loolu yooyu rafetlu loolu moom boo ñu jugee yooyu moom benn gis nañ ay njiit yoo xam ne. yu mel noonu <laughs> du ma tudd du ma personnalisé mais. non mën nañ leen gis nañ ko fu ne quoi. loolu loolu des des deux parties. mënoo si joxe exemple. mu ne na bi benn. damay damay bañ a wax tudd tudd tudd. non xam nga tey. damay bañ a tudd ay kii mais am sa am nañu si am leneen leneen leneen. déggoo li ma la wax lu bon bu ko ñëpp doon def taxul mu daga. dafa am loo xam ne rafetul ci. monsieur li nga bëgg a jël ñee rek collé leen di jëm leen collé motif kii bi. mais ñoom ñoom mais ñoom. ñoom la ñu non ñoom la ñu gis man ñooñu laa gis te ñooñu laay wax bu fekkee nag ñoom am na ay militant yoo xam ne mën nañ ñëw fii tamit toog wax ne la yeneen cas ñoom ñoom la waaye man li ma gis loolu laay wax man fi ma nekk laa nekk mm-hmm. man dama nekk militant nekk benn ko yaakaar nekk biir APR di liggéeyal ki nga xam ne mooy Amadou Mansour Faye man lu sama mentor bëgg loolu laa bëgg lu mu bañ loolu fi saako suuf. c'est comme ça Mansour mi bugaat di dix milliards te indee non xam nga xam nga tey euh, li wax rek on ne tire pas sur une ambulance quoi bugaat moom <laughs> mën nañu wax ni buzz lay doon wut. tey ah, politique boobu politique boobu xew. mais wax na ne nee na mënul dëgg nañ ko boo nañ ko kii mais ba léegi gisaguñ saa yoo xam nga tey gis gi gis nga dafa am loo xam ne ndeysaan dañ ci jàng dañ ci am jàngat bu rëy on ne peut pas créer des ennemis je ne pas des opposants parce que ñii taxawaay opposant opposant mooy quelqu'un qui am day proposé naan la BRT nga proposé man proposé ma BRT lii a proposé terre bi nga def proposé ma terre mais li laa proposé xaalis bi nga si def man su doon man la dinaa ko def comme le fait actuellement Abdourahmane Diouf il le fait bii vrai que man bokk naa moom gis-gis bokk naa moom bëgg-bëgg mais gëm naa ne kuy défendre ay a rafetee nga xam ne moom euh, am seen société bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñu wax fois tey loolu ñooñu ñooy homme politique mun nañ d'accord ci ay mën nañ bañ a d'accord ci ay proposition parce que nit rek lañu waaye man tey damay xas diw gis naa diw fii mais buggaan li mu def ñun tey amul laaj dama ne say naataango nga laaj leen ñaata yoon lañ fi toog di kaas ne ñoom fay ñu ne seen salaire ñaata ak leneen ak leneen loo xam ne ñun ñu si wax xale yi jigéen yeeg ak affaire yooyu noonu. li ci bi loolu bu ñu si wax xam nga tey bu fekkoon yooyu kese bu bu fekkoon dañuy wax lu ñaaw kese loo xam ne réew mi dañ ko am moom bokkul bokkul loo xam ne comme ay ay mbirum personnel la. man tabaski bii. accusation wul mel noonu c'est grave ñu jógee dañ ci wax dama dama dama dañ toog ñu war a def dañ def conférence de presse mu ne ma yéen mu ne nga tontu parce que yéen da ngeen di créé beneen nit parce que man bëgguma fi créer leader comme on l'a déjà vécu avec Ousmane Sonko on a créé de toute pièce tey waroon ñu ñu taxawaat di mayaat beneen flanc te loolu moo xew léegi gis nga su ma bëggoon siiw léegi léegi damay damay ñëw ñu xeet ci émission bi léegi léegi ñu am buzz Sénégal loolu fi nekk xoolatuñu lu rafet gis nga bu ñu doonante woon campagne nga ko léegi léegi dañ koy defee léegi dañ naan dañ koy dañ koy partager ku nekk naan xaaral ma dem seetaan xaaral ma dem parce que Sénégal lu ñaaw la ñuy wër donc buggaan ñun foofu lañ tolloo ak moom nekkuñu wax ci wax wax si moom sax man mënoon naa wax ne sax dañu koy parce que ñun bëgguñu may koo xam ne tey ki nga xam dafa am problème parrainage dialogue beeg wax ci muy wax yëpp loo wax émission boo ko invité mën la parrainage parce que bu parrainage am problème man mi nga xam ne sax Ousmane Niamé tey su ma soxla parrainage rek maa ngi bëggoon di compétir maa ngi ëpp ay parrainage kooku léegi dañuy toog ñun di créer ci ay wax yoo xam ne damay yeewale ñaata yoon lañ fi dégg Ousmane bu dëgg sa bopp Bougane quand même waaw Bougane moom. Bougane de bu bëggee. Bougane bu bëggee ma may la exclusivité bu bëggee bu bëggee bu bëggee je le dis publiquement maa moom ñu bëggee maa moom ñoo bokk ndax su bëggee maa moom man je l'invite publiquement je le défie moom ñu toog ñu toog débat te amul preuve boo xam ne mun na ko teg si kaw taal bi concernant l'affaire des quatre-vingt-dix-huit milliards yi bi wax a wax noonu noonu gis nga Sénégal da ngay xoolal gis nga milliards dañ ko tuutal ndeysaan milliards dañ ko tuuteel ñaata lañ fi dégg le cas de Sonko ay quatre-vingt-quatorze milliards ay Amadou Ba ma ko xamal jiw ni ma ko xamal jeunes yi nga xam ne xamuñu lu xew jël seen téléphone daal di tëb fippu loolu lekk métti jeunes yi mooy fausse information yi mais léegi nag dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo xewal benn opération boo xam ne da ngay tegg tegg lépp loo wax daañu toppaat ñu démentir la daañu toppaat wanal askan wi ne lii du dëkk waaye malheureusement Sénégal nag ñoom dañuy far buñ doonee ba mu ba nga xam ne nag weesu na te Abdoulaye Wade ñaata ñu ñëw suñu yuux naan ko góor gi génn suuli leen ko fi mu ñibbi si waat France ñaata ñaata ñaata ñaata ñaata nit ñoo ko gàttandu ñaata ñi ñoo ko teer Karim Wade kan c'était demande sociale à ce que ñu ñu ñu ëttee ko à que ñu tëj ko Sénégal yëpp naan ñun Karim Wade du demee noonu ñuy wax di wax di wax bañ teg dossier am si. si biir Karim boobu nag nee na dëgg di jëlee waa PDS jiñ nañ leen ko. waa PDS jiñ ñu gis acte acte ñu gis yu bëri moom moom na xel ñaaw de. waa euh, ku leen xam nag très sincèrement war nga xam ne. war nga xam ne PDS képp ku leen xam. war nga xam ne di la ñoom du du du du yomb Abdoulaye sax Abdoulaye dégg fi tal fi lu mu fi yàq président de la République lu mu fi yàqul Macky Sall amul. tey kenn mënul la wax. mais yi tamit loolu la dee am dil dil dil bu dee am gis nga dil bu dee am xam nga dil bu dee am tey fii képp Sénégal képp ku fi rencontré nit média bi génne na ko presse bi génne Sonko Idrissa Seck ba ñuy rencontré Barthélémy Dias Macky Sall ba ñuy rencontré presse bi non comme comment fii Sénégal léegi boo Sénégal fii kenn amatul kenn amatul amatul amatul kenn amatul genre secret non homme politique moom attends gis nga loo fi mën ci wax dégg dégg ñu ne la diw nee na. diw diw mu ngay défendre avec insistance sax. avec insistance am na turé ma ne mu ngi ciy insister de. non am nga tey politique à chaque fois mu feddaliwaat ko ne maanaam dil boobu moom. non am na turé mën nañu comprendre. am na quoi suñu sœur la suñu camarade la te dañ koy comprendre position parce que gis nga politique ku si nekk da nga am benn li nga xam ne mooy CV politique tey sa CV nag soo waree def benn examen. tey mu nga war a jàll ñu ne la ah li nga lii mooy examen bi boo ko jàllee di nga am master wala di nga di nga am doctorat extra ñu téye la elle a été recalée la comprend vraiment xam nañu ne vraiment situation mais je suis pas là pour attaquer suñu ay anciens camarades wala et cetera mais dil moom dil Sénégal moom Sénégal fii Sénégal fii dara ubbeetu fi hmm. Sénégal fii weerante bi te dara ubbeetu fi très bien très bien le temps est le meilleur des <laughs> juges le temps est le meilleur des juges tey bu ñu toogee tuuti daañu xam dil am na wala amul tey ñaata yoon lañ fi dégg Macky Sall ak jiw Macky Sall ak jiw amul te dañuy toog ba mu yàgg gis ne ñoom ñu ngay dóorante tey Barth expliqué ne rencontre am Macky Sall mu demee gis nga politique sax pour man ay ay ay compromis warul mun a am warul mun a ñàkk waxtaan damay xool yaa gën ci réew bi man la kaa ñu waxtaan gis naa ne man su ma demee war nga mën a toog jiite réew bi mais du ma jox ñoo xam ne tey heure bu ñu jógee dañ naan nañ jug ñu taal dëkk bi barki démb mondial gis nañ la situation de Korma maa ngi ngor attends je vous vous dis looluy erreur bi nag looluy erreur bi xam nga yow mi yow mi di suivre actualité yow mi nekk ci presse di xam information te loolu il faut que tamit seen mbokk journaliste amaat ci beneen taxawaay amaat ci beneen taxawaay ñu bañ a ragal bañ a am benn complexe xam nga tey lan mooy am mooy su ma waxee dañ may saaga su ma kii dañ may nangam ak tamit des vues am na des journalistes xam ne ñuy wax su ma su ma attaqué wul Macky Sall su ma invité non non mais da ngay xool sa àqula ah, ak gis nga la situation loolu moom sa gis-gis la gis nga non am na ñenn ñu koy def mais na am tey maa ngi toog ak yow amul benn ñu amul benn ligne boo xam ne ma lii la ñuy wax lii la ñuy posé suma paree lii la ñuy waxtaan li nga xam ne mooy dëkk bi xoolal la situation de man Ngor laa nekk man sama sama njaboot ak sama sama soxna barki démb mondial lañ nekk ak man mais lacrymogène sama biir kër la dugg tey may gis xale yi góor yi li ñuy manifester woo affaire yi di ci ñoom te ñuy défendre li nga xam ne ñoom peut-être ñoom lañ gëm Ousmane woo woo waa Wakaam waa Yoff génn ngeen dem rayante. est-ce que donc dafa nekk non non manifestation yooyu moom bu bu bu loolu dafa rafet non moom moo ne dafa la wax ne déclaration bi mujj boo ko dégloo moom moo woo waa Ngor waa kii waa Wakaam ak yeneen ay quartier ne dem na ngeen jàppale seen mbokk ngor yi ngeen génn ci télé bi ngeen xeex. ngeen dem rayante ji loolu dégg nga ko déclaration en tant journaliste loolu dégg nga ko man lu rafetlu ma ko man mi nga xam ne man laa amoon pour génn pour jëndi pain sax mënoo ko génn jënd ko si boutique bi ñu koy dund may toog di gis ay xale yoo xam ne dañuy daanu jël ay vinaigre di ko xëppoo tey dafa am loo xam ne sa violence gis nga li naan garabu képp koo jëmbat yow lañ ci balaa ngay jëfandikoo si kër yow lay njëkk daal il faut que ñu xool taxawaay yi nga xam ne suñu jiit am nañ ko tey wax li nga xam ne politique li ko tax a jug mooy defaraat dëkk bi mais tey bu jàppee ne dañ koy noot di ko faagaagal te moom it. ah noot ko faagaagal loolu rek la yaakaar moom loolu la jàpp. noot faagaagal jàpp na ne dañ koy noot jàpp na ne jaay doole la ba taxit lu euh, mu tuddati force populaire boobu rek la yaakaar ñu jëfandikoo ak ñu ko gëm. non xam nga tey. loolu la jàpp gis nga tey bu fekkee force populaire bi nga gëm da nga bëgg ni xale yi nañ génn rayante ñaata nit ñoo dee ci mars plus de quatorze personnes fan lañ mujj barki dem moo jaay lañ gis Macky Sall accolade ak euh, Barthélémy Dias Khalifa Sall kontante tey man j'en suis sûr ku tàndaloo micro Barthélémy Dias bu réccu ne li xewal Mansour réccu na ko ndax accusation ak ndax li nga xam ne taxawaay bi nga xam ne gis na ne lii kat jaru ko woon ci jaroon ñuy xeex ko ndax tey soo demee ba Khalifa Sall li mu liggéey man man bokk ma ak parti mais damay am lu ma naqaarlu koo xam ne ma xam sa dimension politique xam ñoo xam ñun ay suñu ay référence la ñu woon dañu doon toog di leen suivre ngay toog di koy huyee di ko yuuxu di ko saaga te dégg nga dégg nga déclaration bi mu def gis nga xew lépp dañ dem ba si kanam di ngeen dégluwaat di ngeen gisaat yeneen yu gën a leer yoo xam ne ak yeneen révélation yoo xam ne mooy mooy am ci ci ci seen politique concernant l' opposition man de opposition bii ma gis pareeguñu ñan ñoo ñan ñoo opposé Macky Sall actuellement ñan nga yaakaar après Macky Sall mën a jiite réew jëlal opposant yi jëlal ma kenn dekar kenn amul kenn ku ci am poids pour man amul kenn ku ci am poids. Macky Sall Macky Sall bi muy jiite Sénégal Ousmane ñëpp la bettoon. ñëpp loolu mën a wax nekk président. non yéen lay bett xam nga président bett nañu bëri de la façon moom nekk président soit mu nekk si yi ñu ñu fës ñu xam leen. yéen lay keneen bett waat. xam bett yéen yi xam ne mosu leen suivre mosu leen suivre am na ñoo xam ne dañu nekk benn leader politique kenn xamu ko waaye ñun dañ gëm ne kooku day nekk président parce que dañu yàgg topp ci ay tànk tey Macky Sall boo jëlee bi muy nekk directeur Petrosen bañ koy fal directeur Petrosen jaara histoire ak président CV CV bi nga Ablaye Wade CV bi nga Ablaye Wade tiimee ak non bi bii mag Idrissa Seck di def déclaration politique générale en 2003 Macky Sall mu ci gannaaw topp tey Ablaye Wade gis ngeen ne te nag am naa benn vidéo mais gis pas bi effectivement il a raison depuis 2008 amul premier ministre xoolal carrière li nga xam ne daka taxawoo ci président daka daka daka liggéey ci bilan Abdoulaye Wade xam Sénégal di dem ay dëkk. non mais quand même fu mu parti bi taxawalee parti bi ak. waaw ñu bëri loolu moom. Euh, ak ñaata kilomètre la def ci si Sénégal ñaata dëkk. demal tey tey bu ma demee dama dama mës a dem Mbacke. diir moo bi gàtt. non xam nga politique xam nga tey politique man tey jii am na ñoo xam ne xamaguñ ma. loolu am na am na ñoo xam ne xamaguñ ma. tey su ma yeewoon suba nekk ministre wala député dañuy demaat di xoolaat sama passé fan laa jaar ñu gis ne def naa émission seen seen info bind naa lii def naa lii naa ah, kon booy fi la jaar. Mhm. politique dafa am ñoo xam ne dañu ay background tey man jëlal quelqu'un comme Mansour Faye mi dalee liggéeyal Macky Sall ba léegi ñun ñi xam 2003 ba léegi Mansour Faye mu ngi jàppale mu ngi jàppale Macky Sall 2003 ba léegi laa la te kenn xamu ko bi muy fël Ndar di gagné bi élection maire en 2014 ay Bamba Dièye ñaata nit. ñaata ay ay ay ay ay ay comment dirais-je Ousmane Masseck Ndiaye avec sept ministres mu boole leen ni ñëpp dóor leen est ce que kooku xamoon nañu politique dafa am looy liggéey ñi nga xam ne Sénégal attention ki fi nekk président laa la xamal ne du ñëpp kay foog de jëlal jëlal jëlal jëlal jëlal tey Abdou Abdou Diouf mi nekk président jabaram sax soxnaam moo ko njëkk xam ne day nekk président de la République demal nga nii Jeune Afrique bi nga xam ne tey da jagleel nañ ko Abdou Diouf tey boo jëlee ba Senghor ne la Senghor ne la man góobu de la même façon nag. jëlal jëlal Macky Sall. procé jëlal Abdou jëlal Abdoulaye Wade bi nga xam ne président mën na bett. Abdoulaye dem na ba nga xam ne dafa génn dem toog France ba ñoom Moustapha Niasse ñoo ko jël ji. muy mhm. doog di ñëw di fàllu ji li nga xam ne foog ko woon. Mhm. yàlla tamit noonu ay mbiram prochain président moom xamal nga la ñuy def nañ dem élection ñu xool ku mën ku mën sa morom duma ni ko Amadou Ba waxee rek bu fekkee gars yi daal leen nañ ne ñoom ñoo majoritaire comme ni nga waxee ne peuple bi ñoom la topp mhm. ñoom ñoo moom réew mi Mhm. askan bi ñoom lañ àndal suñu defee mobilisation ñoom ñooy feesle dañu mhm. dem élection élection boo xam ne Macky Sall les jeunes vont parler eh ay la yéwén élection boo xam ne Macky Sall du si bokk <laughs> Macky Sall mënul ñàkk bokk si élection Macky Sall non non Macky Sall mënul ah, ñàkk xamul tax xamul tax ñoom xam nañ ko kon nga ñaari mandat yi mat na tey mandat yi moom question mandat wu jeex nañ <laughs> damay xaar ba gis si constitution damay gis damay xaar ba gis si constitution article 27 bu ne nul ne peut faire ne peut faire plus de deux plus de deux mandats consécutifs de sept ans ou bien de cinq ans te dégg nga Ablaye lii. mais yow loolu man loolu dama koy xaar ba gis. non non maanaam bu ñu nekkee kon pour man pour man sax lii moo gën a leer. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. non non ça dépend ñaari tegle. kon loolu moo gën a leer ça dépend loolu ci. cinq ak sept kay peut-être problème foofu lay nekk. gis nga ça dépend ça ça dépend. mais kenn mënul def ñaari tegloo. yaakaar naa loolu la koy ñaari tegloo ci ñaata. kenn mënul def ñaari tegloo. xam nga dama lay jox exemple. dama lay gis nga tey wàllu wàllu techno wàllu tey pourtant je te donne juste un exemple pourtant on dit une semaine contre sept jours n'est-ce pas ce qui veut dire que deux semaines ça doit être combien et pourtant on dit une quinzaine pourquoi on dit une quinzaine pour pour pour pour pour nga koy indi foofu. mais mathématiquement parlant parce que non non théorisé la. <laughs> affaire non kii leer na c'est la question de mandat. il mais est-ce que deux mandats est-ce que deux mandats de sept ans. non de lépp deux mandats de sept ans égale combien. deux mandats de lépp. deux mandats de sept ans égale combien. dégg nga loolu deux mandats de lépp. ngeen ma fay deux mandats de lépp. ba tey nangoo nangoo ma ma la wax ne la. wax naa la sànq sama eh, eh, njël benn wax. Eh, ah. ne la constitution bi euh, article 27 dafa man li ma gëm te baatu Boubacar Justin Ndiaye wax ko dama ko gëm te loolu dama sama gëm-gëm bu ferme mooy dafa des lu ñu war a am li yor te loolu mën na bokk si dialogue bi mën na bokk si dialogue bi mën nañu xool article euh, L30 L29. Ah, gars a bokk si constitution wax si constitution bi. tey li gars yi war a dialogue sax dialogue li gars yi war a dialogue constitution bi si bokk. tey Sénégal guide religieux du ko jiite pourquoi pas duñ dem dialogue yi waxtaan ci yooyu ak tant d'autres man dama yoo xam ne man dama nekk biir benn bokk yaakaar bokk biir affaire mais am na dialogue yoo xam ne man su ma demoon tey dinaa président lii kat lii lii lii lii lii. Hmm. tu vois tey dafa am loo xam ne il faut que président ku koy kuy lu defar réew mi la wër tey bu toogoon am si biir dialogue kenn ne ko ah man ka la ma gis si société tel yaa ngi wax poste waaye lee ak lee kat doxul loolu si dialogue la mais dialogue du amnistie Karim wala Khalifa Sall moo war a nekk dialogue parce que attention gars yi dañuy sous-estimer élection mais élection dafa bokk ci pilier démocratique yoo xam ne dafa bokk luy téye ci euh, comment dire la démocratie mënuñu wax démocratie sans l'élection sans liberté d'expression. élection transparente. voilà donc loolu daf bu ko bu ko kenn bu ko kenn du si tuutal. bu ko xenn xeeb il faut que ñu dem waxtaan ak le président de la république te nag gis nga bu ñuy mënti wax dans l'histoire de la politique sénégalaise jàpp ne dialogue boobu fa amoon fa amoon peut-être teg posé tànk jàmm wala ñoo xam ne ñu jàpp jàpp nañ ne ay détenu politique lañ leen ñu téye leen ci kaso ba pare mais yooyu si dialogue bi la war a bokk ba pare di ñëw woo nekk xam nga détenu politique xam nga détenu politique il faut que détenu politique gars yi xoolaat moom la mooy détenu politique yow su fekkee da nga yeewu gis ngeen manifestation man man vraiment Sénégal damay toog man a man ñu mën Sénégal lañ jëm yaa envie mu ne ma gis nga man je fais pas de la politique armée la nekkoon mu ne mais bu fekkoon sénégalais yi xam nañ li xew ci xam nañu am nañ ay information armée bi mayoon nañ leen autorisation ñu wax wax leen li ñu gis da ngay da ngay da ngay yéem mais gis nañ la déclaration te Barth la là j'invite Barthélémy la situation tey lan la la def loo xam ne waroon na ko yóbbu cour d'assises bu Ousmane Sonko wax na ko te loo xam def naa loo xam mënoon na ko yóbbu cour d'assises mais lan la war a doon ñoom lan lay war a def te déggoon nañ fi tentative d'assassinat de de de Bamba Fall gisoon nañ fi ay forces occultes nga xam ne capitaine Dièye mu ngi wax gis nga Sénégal il faut ñuy xool kat ngay gis manifestant yoo xam ne dañuy dajji ay butigu jàmbur di agressé démb euh, taal ñu fi kër Cheikh Yérim ñu fi tey rek maa ngi gis euh, au niveau de la presse tey ñu ngi nii Mbaye euh, le ministre Serigne Mbaye Thiam ñu taal saa yooyu dañu liggéey Sénégal Serigne Mbaye lu def si li mu def si tey ministère Sénégalais la comme ñun ñëpp da nga war a mer nga Farba Ngom lan lañ lan mooy lan mooy raison ban raison la nit ñi mën a am pour taal këram bi nekk Ngor saa il faut ñu xool bu ñu rek wala keneen dafa lii rek ñu war a xool ne ñun daal képp kuy taal d'accord nañu te ba ñu bëggee ne dañu tey ñu war a arrêté Ousmane Sonko wala kat Ousmane Sonko procès suba dañoo daw kër Ousmane Sonko protégé lu tax ñu war a taal ay kër jàmbur pour lan loolu loolu mooy Sénégal bi nga xam te boo taalee kër jàmbur am na yeneen kër yi nga xam ne seen yoon nekkuñu si hmm. tey man mii sax est-ce que je me en sécurité est-ce que je me sens keneen ak keneen duñ taal këram léegi kuy def politique rek faire de la politique c'est crime tey est-ce que tamit ñi nga xam dañuy def presse waroon nañ nangu ne dañuy taal seen kër ñoom tamit gis nañ seen ay seen mbokk seen ay confrères yi taal seen ay seen oto mais Sénégal xamul loolu dans l'histoire de la politique sénégalaise jëlal bi nga xam ne yow archive Sénégal nga xool ndax mës nañu retenir ne des ay des maisons des wala ay maisons de loolu mosuñu ko xam Syrie te nag attention benn waykat doona wax ne su fekkee tu te fais élire par la violence xamal ne violence moo la fay jëlee waat te naa la xamal ne képp ku gañe réew mi ci violence pour nga gouverner na jafe trop ndax man képp kuy faluwaat fii te nga faloo si année bi di nga ki ngay njëkk a man lay nekk kon loolu dañ si war a bàyyi xel. Mhm. te xool ci yan anam la ñuy faloo ak yan anam la war a taxawee. Mhm. Ousmane Niang maa ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi lay jaajëfal mon euh, vraiment waxtaan bi amoon na solo lool kontaan nañ trop mm-hmm. ndax tamit euh, lii la Sénégal soxla ndax mun naa ne sama liggéey lañ ma fekkoon biñ moo woowee dama ne ah comme li jar réew la ma demande autorisation ñëw wax ñëw waxtaan ak yow échanger yo mm-hmm. parce que tamit bu ñuy doxalee suñu liggéey du dox Sénégal dox ndax lii rek lañ xamee Sénégal mooy pénc tey mën nañu wax ne tey presse yi ngeen def nii surtout les presses en ligne dañ leen di encouragé. parce que ñu bëri dañuy sous-estimer les presses en ligne mais pour man c' très important parce que ce qu'on appelle l' internet aujourd'hui c'est un accélérateur de mm-hmm. am too amoon télé yi wala leneen duñ ko tamit ngeen am ngeen mën ngeen def loo xam ne dama koy rafet muy seen info ngeen di di leen jox seen seen chance pour ñu wax ndax tamit amaana dañuy jéew rek ndax bëgg-bëgg bi nga xam ne opposants yi am nañ ak suñu ndaw yi nga xam ne ñoo faral feneen même fekkee bokkuñu ay gëm-gëm politique gëm nañ Sénégal moo leen ñor donc vraiment am na contentement am na naa raf maanaam xol bu sedd guy ñëw waxtaan a yow li nga xam ne ci réew mi la li nga xam ne situation wu dëkk bi la. Mhm. vraiment di woote tamit appel au calme sénégalais ñu revenir à la raison te xam ne lii nii ci dëgg rek lañ mu te ñu suñu justice ndax justice ci réew moom bu amulee bu justice mënulee violence ak am ndax ku nekk mën nga régler sa bopp donc di leen invité à ce que ñu calme te wóolu suñu état wóolu suñu justice te xam ne incha jaar fu mu a jaaree dana mu war a leeree waaye tamit di nga may tamit nga ma remercier nga xam moom ma formé mooy sama njiit mooy sama mentor muy Amadou Mansour Faye donc di leen sant di leen gërëm waa seen info sant sant di gërëm mbokku internet yi nga xam ne kon ñu ngi doon bàyyi xel ci jotaayu seen info di leen jox dig daje kon alarba euh, beneen invité ci yeneen actualité